xëy na peut-être suivre leen li xew mais ñun groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dañu am suñu avis par rapport à la situation par rapport à au, projet de loi qui arrive et ci appréciation boobu la ñu ne ñun gisuñu opportunité wu ñu déposer article 87 donc ñun ñoo demandé ñu retirer ko ñun groupe Benno Bokk Yaakaar donc si demande boobu président de la République mi nga xam ne mi ngi déglu groupe am dafa demander ministre justice mu dindi article boobu waaye ci ci ci ci ci euh, ci modification yi war a ñëw c'est coow li ñuy wax ni yëpp ay coow ñu xamul xamul li ñuy wax rek la c'est tout mais y aura de d'étude sur ça